jërë ngeen jëf euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu fii ci Touba Mbacké ci Magal Touba édition 2019 di atu 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa ñu ngi fii ci benn ci bërëb yi nga xam ne bërëbu ziar la taalibe yi bu ñu ñëwee ci màggal gi wala sax bu dul màggal daañu fi ñëw ngir sàkku si fi ci ndox mi nga xam ne moo fi nekk ñu naan ko aynu rahmati aynu rahmati di teen bu barkeel boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko gas la woon bi mu bënnee nag mu dénk ko ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ak moom muy euh, sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ loole nag law ba ci ñi nga xam ne ay sëtam lañ tey jii ñu yor euh, li nga xam ne moom moo di teenu aynu rahmati aynu rahmati bëri ngëneel aynu rahmati taalibe di fi ñëw di sàkku ci ndox mi jamonoy màggal ñu fas yéene fay ñëw ngir ñu xam li nga xam ne moom la bërëb bi làmboo ci ay ngëneel waaye taarix bi ndax ku ne xam na ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu nekkee xalifa Serigne Touba ci la ko def forage mu doon ay robinet ndax jukkeetuñ teen la waaye jukkeetuñ ko. loolee lépp incha allah ñu fa yéene dugg waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñu fànn googu waaye waxtaan ak ñenn ci taalibe yi nga xam ne dañ leen fekk ñuy ziyaare si si bërëb bi waaye di sàkku si ci ndox mi nga xam ne ndoxu barkeel la rek kon mbokk téléspectateurs yi ñu dugg fii ci Aynou Rahmati ci reportage bi nga xam ne moom lañ leen fi amal. araf yi maanaam niñ ci liñ leen ciy mën a ñëwale mooy euh, teen la boo xam ne sëñ bu mag bi moo ko gas moo ko tàmbali ci loxo boppam bi mu waaw Serigne Touba koy tàmbali it moo wàqi loxo ba mu xóot mu sotti ci liitaru sam boo xam ne ab xaritub saalum saalum moom moo ko ko joxoon ne nañ ko ko gasal euh, am na lu ko ci boro sama borom dikk bu bënnee ah, ñu koy gas di def magi taalibe ya fa newoon ko aaya gas ko aaya gas ba ci ayuk maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag ci la bënne maanaam li ci taw fii xam moom ci ak ayam ci la bënne mu tànk ci ndox mi eh, fekk sëriñ bi bayti jox ko ci mu eh, sant boromam daa di taalif xasida ak alhamdulilahi jasili nihmati ala xuróoji maay xaynu rahmati maa ngi sant sama borom ci ndoxum aynu rahmati mii ko doon ñaan ci Tuuba bam may ma ko oh, loolu de bokk na ci ci liñ la ci mën a waxal ak leneen loo ci mën a laajaat ñu delluwaat ci rek waaw Mm-hmm. ndax mën nga ñëw leeral ndax ginnaaw bi dañ ko ko dénk wala. waaw bi mu bënnee it xam nga Touba moom dañu sëriñ bi euh, maanaam comme niñ ko waxee woon rek euh, bi nga xamee ne maam si sëriñ Touba jóge na fi ah dem nañ ba nga xam ne teen bi demoon na ba xaw a sakk waaye sëriñ Fallou Mbacké ci ak baaxam mooy moo woowaat maam sëriñ Sarr doomi maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bi mu ko woo ne ko damaa bëgg ku may yeesalaat teenul ay nu rahmati boobee nga xam ne sa waajur woo moo ko gasaloon sama waajur Serigne Fallou yeesalaat ko Euh, ba ndox mi ñëwaat ñu di ci barkeelu Serigne Fallou waxaat na ndox mi de lépp lu ci waay saafara mu saafaraw bi ko maam Serigne Sarr yeesalee it biñ demee ba ay jamono Serigne Abdoulaat àndaat ak Cheikh Basirou Sarr jaam Serigne Touba ñoom ñoo ko defaat forage euh, moderniser ko ba mu nuroo ba mu jamono mooy lii ngeen di gis nii waaw Serigne Abdoulaat ak Cheikh Basirou Sarr ñoo ko euh, yeesalaat ba mel noonu waaw. waaw. waaw sëñ Bassirou Sarr moom it moo ko mujjee yeesalaat ci jamonoy eh, Serigne Saliou bi mu koy yeesalaatee yaakaar naa ak bi mu nelawee eh, matul sax at. Euh, moo ko yeesalaat moom it ba mu euh, ba mu melaat nii ngay gis nii euh, tubaar macha allah tubaar kàlla ku na xam na ne moom fi ne boo ko heure ay nu rahmati boo ko gisee rek day mel ne day doog a bees. bi mu fi jógee it nga xam ne moom ba Bassirou Sarr bi mu fi jógee jaamu tu Touba rakkam ji ñuy wax Cheikh Ibrahima Khalil saar mooy sunu wasila moo nu fi indi nuy saytu liggéey bi di ci liggéeyal Serigne Touba comme niñ ko niñ ko niñ ñu ko waxee woon di ñaan nag yàlla yàggal ko fi mooy mu gën fee yàgg lool di ñaanal Serigne Mountakha moom moo yàgg fi lool te wér ba naar yi mu naal moo àggale ko ba ay naal yeneen tan ànd koog moom ci barke Serigne Touba. Serigne Touba def rek benn ma tàmbalee ci wax la ko. képp koo xam ne indi nga saafara di ko ca saafara te saafara soosa dënjut naga nga seetaat sa bopp xam ne ci yow la ndax li ci mat def lépp def na ko ci kon ñaar ndox mi itam ñu bari ñëw nañ fi ne kenn ku bari na ñu fi ñëw ne dañoo amoon jàngoro di ko jëfandikoo ba léegi gisatuñ jàngoro jooju moo tax ñu fonk ko ko muy seen lépp loolu daal xam naa ko ci. day xat jamonoy màggal day xat ndax na nit ñi wute ji sam-sam leen koy wute fii ay na waaw dañ fi ñëw di wut si barkeelu waaw niñ koy jëriñoo daal li ma ci xam deesu ko tàngal deesu ko sangoo du laal sobe boo bëggee boo bëggee naan ñaan sa soxla naan daal sàkku nañ ko ci li leen lu ci waay def nag lii mooy li gën na boo ñaanee sa soxla naan mooy li gën ndax daal du laal sobe waaw laal sobe daal déedéet kenn du ci jàpp kenn du ci jàpp kenn du ko tàngal dañ koy joxe addiya rek sa suñu kenn leen kenn ku ne yooyu seetlu sa xol attan ak lu la sëñ Tuubaa jaral nga joxe ko ñun néewuñu kenn. boo ñëwee boo amee joxe ñu doyal la soo amut demal ñu doyal la waaw loolu daal lañ fi nekk. gis nañ ni tamit jamono jamono teen la woon ñu dem bañ fa dalee nekk ak léegi ñu ngi bëgg a dugg suñu juróom-benn at xam waaye mosuñoo manqué ndox xam naa daal dañuy joxe ba nu màggal ga jeexee te ndox mi di yëngu. déedéet déedéet ñun dañ ci bokkuñu ci. ñun bokkuñu ci waaw. xanaa nag di leen sant di leen gërëm rek ndax yéen bu ñëpp ma meree ndax da ngeen ko tas kenn ku ne xam lay njariñ li di di ca sawar a wuti waaw man maa ngi tudd Coumba Ngom Mbaye. man mbuur laa jóge nag. waaw ñëw fii Aynou Rahmati fekk la fi lan nga fi dox si woon. xanaa ñëw ci barkeelu ci teen bi rek gis ci ay ngëneel rek. di ci wut di ci ñaan suñu soxla di ci ñaan suñu doom yi def bac yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp ñu am ko ci jàmm ak salaam waaw ñëw rek ci màggalu sëriñ Touba gi nag sant nag ndax dara jeexu fi lépp a ngi fi xar yaa ngi fi gileem yaa ngi fi nag yaa ngi fi macha allah Serigne Touba kenn la amul moroom. ndox mi daal da ngeen gis ne day saafara lu bëri bëri moom moo tax bu ngeen ñëwee màggal di ci ut si. waaw ma yeboon ni ndox mi daal docteur la parce que li muy ci nit bari na macha allah yitte boo am loo aajowoo ci fasee. li kàttan suñ borom yàlla may la ci li nga bëgg moo tax nag dañ koo fonk du ñëw Touba ba génn te wutuñ ci ndox mi sant yàlla daal ndax gis na gis nañ ci ngëneel ñu ngi ciy sant bu baax sant Serigne Touba bu baax a baax. maa ngi ngi jóge ba Mboro Mboro bu baax rek parce que dégg liggéey Sëñ Touba waaw mosuma ñëw màggal si nag man ren daal foofu ma ñëw rek ma màggal si Sëñ Touba. yaa ngi door a ñëw màggal Touba. waaw lan moo fu ma nekk moo sëri loolu moo tax waaw si àll bi laa nekk loolu moo tax dama daan ñëw màggal Touba waaw. ñëw daan nga dégg dama daan ko dégg waaw dama daan ko dégg. moo tax tey nga ñëw fi. waaw ma ñëw fi waaw waaw ndox mi barke na. na dégg faj aajo day faj dégg ñi di ko wax waaw. waaw loolu moo tax ma jubal fi ma ñëw fi. waaw. non amaguma si ndox mi de si ndox mi laa bëgg kay waaw. waaw incha allah bëgg naa loolu laa bëgg kay su ma dem yóbbaale waa kër gi yëpp incha allah. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlale woon fii ci Aynu Rahmati ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Darou Sarr leerale mu nekk teen bu barkeel teenum ngëneel teen boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko gaslu woon ba mu waaye mu def ci ñaan. ba képp koo xam ne taalibi la rek bu ñëwee fii ci Touba la muy njëkk def mooy ñëw ci aynu rahmati sàkku ci euh, ndox mi ngir lépp loo xam ne jàngoro ci moom mu saafara ko santaat leen gërëm leen ci ànd bi ngeen àndoon ñun ci màggal Touba gi dig leen dajee ci yeneen reportage yoo xam ne daañu ko fi amal jërë ngeen